bismillah ñu dégtal leen li gën a fës ci yéenikaay yi nataalu xalif général murit bu bees bi daanaka la yéenikaay yu bari xëy fësal ci seen xët bu njëkk le quotidien yéenikaay daal di ne sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif la ñaari yoon xalif bu murit yi ak bu daaru minam l'évidence yéenikaay daal di ne ko xalif général bu bees bi moo fas yéene garder héritage bi nga xam ni moom la fi soxna jaaru bu so bàyyi yéenikaay bi dafa dellu si itam si li jotoon xew niki démb ci dëkku Mame Bamba boobee bokk ci tout tànk bu fa ñàkk bakkenam gannaaw ba ko yaay ji bootee ca biir ab buuxante bu amoon ci bërëb bu sëriñ bi làkku uutu gi ñu uutu sëriñ Sidi Mokhtar le Vox Populi dikk ak ñun ba tey yéenekaay bi duñu xamal ni sëriñ Mountakha Mbacké ku am respect ngi nii jox cër ak confiance ñëpp ñu ko jiitu li ko dalee ci sëriñ Saliwu Mbacké ba ki fi jógee ni ki démb Vox Populi yokk ci ne ku maandu te jàpp ñàmmuram ngi nii ci làkkub sëriñ Sidi Mokhtar bi yéenekaay yéenekaay bi di zoom info mi ngi ci xamle ni embouteillage yu politicien moo fa amoon ndax takku gi ñu takk woon ca Touba ak it discours yu bëree bëri yu tukkee ci ñoom Idrissa Seck Abdoul Mbaye Tanor Dieng naka noonu la Idrissa Seck ak Abdoul mbay ku ci nekk di wax sa jaar-jaar ak sëriñ bi làkku Le Soleil yéenekaay ni ko Macky Sall itam wax na yëkkati na ay kàddu daal di ne sëriñ Mountakha fas yéene nañ la gunge ci liggéey ak sàmm bi nga nar a sàmm liggéeyu sëriñ Touba gannaaw bu bees bi daal di xamle ci tribune yéenekaay ne fas yéene na sàmmali fi maamam bi di Serigne Bamba Mbàkke bàyyi woon état bu Sénégal ci turu njiitum réew mi xamle ni loolu du doon rekk liggéeyub sëriñ bi ndax fas yéene nañ cee jàpp ànd ceeg moom las yéenekaay ca wet ga di ñu dégtal jikkoy xalif bu bees bi ay qualité mbaaxam ak pas-pasam las yéenekaay daal di fësal ci xëtam bu njëkk ni sëriñ Muntaxa Mbàkke ku am xitma la rax si dolli dafa yàgg doon su nekk enquête yéeni kaay dikk daal di ñu xamal anam boo ci Serigne Mountakha Mbacké làkk ay relation am ak Serigne Abdoul Ahad Serigne Mourtada ak Serigne Saliou njàngam njàngam ca réewum Mauritanie ba ci nafar gi mu daan nafar lii di nuuru daaray ni 24 heures daal di kay feelu ni ko borom xidma gi dikk na sëriñ Mountakha xalif des Mourides bu bees bi ku utek ñu bëree bëree ngi ni njaareem ak poroxaan fas yéenee doon ay chantier l'observateur ci waxtu mujj mujj yu Serigne Sidi Mokhtar dund ci la dikk ak ñun waaye itam ndénkaane ya mu jot a def laata mu làkku libération yéenikaay moom it daal di ne Serigne Sidi Mokhtar ma ngay noppalu ci barab ba mu tànnaloon boppam moo ko tabaxaloon boppam ca màggal bu mujj gi daan fa faral di jullee diggante 2010 ak 2018 ca at yooyu yóbbu na fa màkk lu toll si ñett téeméeri doomu aadama ak juróom-ñeent fukk ak ñaar génnee ëpp 1 milliard jagleel ko néew di doole yi yéenikaay bi fësal fësal na seede yu bëree bëri tukkee ci ña fa teewoon dalee ko ci njiitum réew mi président Macky Sall ba ci monseigneur Benjamin Ndiaye le témoin dikkaat moom itam ci kàdduk ndénkaane yu mujj yu Serigne Sidi Mokhtar def laata muy làkku ak it autorité ya fa teewoon seeni seede ak kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko gannaaw ba ñu teewee woon ci bés ba ñuy denc Serigne Sidi Mokhtar ñu jóge Touba jaar Casamance dellu si waat si jëy yëpp ba amoon fële ca Boffa fan yi ñu génn le mooy di xamle ci xëtam bu njëkk ne larme bi taxaw na temm ngir topp ña def ñaawteef boobule fas yéene leen topp fële ca Guinée Bissau fii ci dakaar wàllum jàng meek jàngale mi wéy di sooxee ba tey laas yéene kaay xamal ñu ko mi ngi ñuy xibaar ne enseignants yi nga xamante ni ñoo féetee ca CUSAMS dañoo xëy banque seeni loxo won ginnaaw classe yi gannaaw ba ñu xamle ni état bu Sénégal jëfeewut accord yi ñu xaatimoon ci wàllum tàggat yaram suñu lamb fësal nataalub Modou Lo daal di ne gannaaw choc bi ñëpp di taaxirlu ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weerub janvier ci di Alaaji nga Ndiaye àdduna ci boobu boobule combat daal di ne Modou Lo ku sadig la ci wàllum xeex Dakar Times fësal ci xëtam bu njëkk ñàkkub diwlin bi yoot Sénégal bu ñu maytuwul réew mi diwlin metti lool fii la ñu yem ak yéen ba ëllëg ci yeneen i yéenekaay jaa ngeen jëf